bi moo yaatu te mën-mën mi barewul dama koy faral di wax tey fi ma toog nii nga xam ne moo aadama dong ma fi toog bu ñu ne woon léegi képp koo xamante ne si yaa ngi fay lemp yëkkatil sa loxo foog naa ñi fi mën a yëkkati seen loxo duñu bare wala bu ñu fi nekkee bu ñu ko yëkkatee ragal naa ne du bare de te kenn ku ci nekk yaa ngi am soxla yaa ngi am yéene ci commune bi yaa ngi xaar monsieur le maire ak ak conseiller bi def ko

bu dee am na keneen koo xam ne gën na ma te mu baax ci Tivaouane Peulh ak ñàkk yàlla na ko yàlla may kooku deuxième beneen mandat yàlla na yàlla yàlla nañu yàlla may lii gën ci ñun nit dana ñaan loo xam ne gënul ci moom bu dee moo gën ci man yàlla na ma ko yàlla may bu dee leneen a gën ci askan bi yàlla nañu yàlla may beneen maire bu def deuxième bu def beneen mandat